est-ce que à défaut d'avoir la solution le président Macky Sall amul woon au moins le début de la solution pourquoi parce que da nga yàgg wax fii ne Sénégal comme di Aliou Sow y a trop de rien maanaam dafa bari suuf ku bëgg a bay di nga bay am nañu ndox muy taw am nañu ay dex am nañu tout président Macky Sall tegoon fii le Prodac ak euh, les DAC laa ñu doon wax ñëpp xam nañ ne euh, ni nga ni ko wax sax xaw ma naan à haute intensité l'agriculture moo ko may mm. moo ko mën tey su fekkoon ne fulla ji ñu waroon a jox le Prodac ak les Dagla mu créé woon dans certaines zones du pays amoon na un peu partout dans Sénégal xëy na xale yi nga xam ne Baro wax na bi ñuy départ ne bari ci ñoom ñuy jël dex ñuy jël gaal gi ay baykat lañ du ñu soxla génn. Ah. Mm-hmm. xam nga Sénégal est-ce que c'était pas ça la solution. secteur primaire nga mm-hmm. euh, su ma koy comparer dama koy comparer koo xamante ne nii maa ngi koy wax bu yàggul dara dafa yéeg ci train ba pare yenu ay bagages <laughs> parce que yaa ngi ne. Euh, euh, day taw. ñu mën a wax ne Sénégal ñetti fleuve traversé nañu ko. yàlla ne du yem ci loolu dañuy jox phosphate boo xamante ne nii. mën na permettre pratiquement euh, euh, euh, surface arable yëpp. ñu defa engrais. qu'est-ce qui se passe. non seulement fleuve yooyu à part le fleuve Sénégal. ak peut-être fleuve Casamance tuuti yeneen bi ci des yëpp kenn explo ko te ni ko exploité mënul permettre Sénégal am tey autosuffisance alimentaire. muy un. Mhm. phosphate bi ñu waroon a mun a permettre dégg ngeen le président Macky Sall mu dem sa Poutine naan ko ay euh, jàppale ñu semence soxla nañ ko nangam sangam te ba mu koy wax am na fii ICS boo xamante ne nii mu ngi defar tous les jours semence ñu koy dugal ci ay saxaar muy jaar port di génn Sénégal di dem te loolu pourtant mënoon na effectivement permettre Sénégal nit ñi di bay. di compter ci phosphate boobu pour gën a euh, euh, yokk seen euh, kii naatal suuf si xam nga product bi ngay wax noonu mhm. mais eh, eh, mais c'est une bonne idée salué naa ko fii mais au lieu que ñu ñoom ñu dem ji ay légumes ak ay leneen xaalis ba lañ dem ji <laughs> ana vingt neuf milliards <laughs> xaalis ba la ñu dem ji dama ngeen dellu si waat ci loolu ma yéen ñeme ngeen dellu bañ a dellu si. bañ a dellu si non mais yéen non. xam ngeen nappaate non li tax ñu ciy lu tax ñu ciy dellu si lu tax ñu ciy dellu si. wax loo xam ne waaw xam nga ko. waaw loolu dama la war a grand non dama la rek wax loo xam ne dama la seeti. mais maam bi nag saa yab na la ah. sama grand du ma ko seeti. <laughs> dama la sama grand. mais xam ne boo moytuwul ma xam xam nga loo xam wax loo xam de. <laughs> léegi dañuy euh, nappaate quoi euh, euh, boobu ñoom nañu ko bindee soo ko liiree mais c'est un super projet boo xamante ni waroon na mën a permettre non seulement mu ñu jël trois cent mille jeunes yoo xamante ni dañ ciy liggéey mais dinañu permettre également autosuffisance alimentaire bi nga xamante ni président Macky mu ngi ciy daw depuis 2015 mais ñoo am ci ay résultat mhm. defu ñu waxaal ba lañ dem ji ko ba pare ni ñëw fii naan ñu ay fii la xale jaar a bëy xam nga Moustapha mhm. dafa am ñetti secteur yoo xamante ne nii. Mhm. pour man bof benn secteur la sax mais mun nañ koo def ñetti pàcc. boo xamante ne nii tant que Sénégal gisoo ñu jël seen budget suñu budget maanaam ñu ne xaaj bi def nañ ko ci ñetti secteurs yooyu. Mhm. mooy taf yëngal lay doon jeunes yi du ñu am ci lenn lu ñu jàpp. dugal ci n'importe quel boutique au Sénégal ah boutique boo mënti dugg. Mhm. nga ne ko ndax am nga sardine mu jox la sardine nga xool sardine ba fan la jóge fan lay jure ma xam nga bu nekkee ne xam nga sànq maa ngi lay wax ne am nañu deux cent vingt mille kilomètres carrés. Mhm. bu doon tey dañu am ñoo xamante ni bu ñu demee nappi ji. Mhm. produit napp ya ñuy jël day dem ci benn usine. bu mel ni parce que sardine bi nekkul ne eh, ci géej gi lañ koy defaree. Mhm. ab usine moo koy defaraat. ay bateau bu doon dañu jëlee eh, jën yi foofu. yóbbu ko ci usine mais dina permettre ay jeunes ñu liggéey ci euh, usine boobu. mais bu nekkee jën yi dañ koo jëlee euh, Sénégal. Mhm. yóbbu directement Europe. mais main d'œuvre ba waa Europe ñoo koy ñoo koy soxla léegi bu boobaa. Mhm. ñi ñuy wax ay clandestin nga xamante ni dañuy euh, dañuy rëcc ci bateau yi ba yegg foofu. du ñu am ay kayit di travailler ci marché noir duñ leen fay non seulement salaire bu baax. Mhm. mais du ñu am droit revendiquer quoi que ce soit muy benn. ci pêche bi. ñaareel agriculture wax naa ko sànq am nañu trois fleuves yàlla may ñu phosphate mais tey Moustapha hmm. transport xam nga euh, Houphouët-Boigny da doon wax ne wax jooju rek nag laa d'accord ak moom <laughs> da doon wax ni hmm. bu mu fi ñëwee seet si Senghor que Casamance hmm. mu nekk tey ñetti région yi moom bu ko yoroon dina mën a dundal toute l'Afrique de l'Ouest Houphouët-Boigny houphouët léegi ñun Casamance boobu dama lay laaj est-ce que waa Casamance sax mu ngi leen di dundal. démb maa ngi dégg ñu naan soble amu fi. <laughs> c'est un mais nga nga jógee ci boobu nga ñëw ci élevage am exemple bu pataa Moustapha. Mm-hmm. un émigré ku nekk Sénégal yanaa bokku nag bëgg mm-hmm. investir Sénégal. mu gis ne meew mi kat boo demee fële sa Fuuta am na yoo xamante dañ koy tuur parce que du ñu am fu ñu ko conserver. Jolof Daara. ma ngoog mm-hmm. moom mu ñëw ak ses moyens. beaucoup d'argent mu ne da ciy investir. jënd ay motocycle am di wër di dajale meew yi. meew mi pour euh, def ko comme euh, bëgguma def publicité mais comme meew yi ñuy jaay ni ay cent 500. pëndax meew yi mhm. mais bu ko ba mu ko defee ba pare. Mhm. meew mi nga xamante ne Hollande lay jóge ah. Mhm. moom meew mi muy defar fii Sénégal lañuy ñuy gën a taxé. maanaam moom. buñ defaree ci meew mi. 300 ba pare. état bi da koy laaj yeneen 100 francs bu ko jaayee 500 cent francs la ci am. ba jóge Hollande moom ba jógee Hollande. ñoom bu ñu ci defee trois 300. état bi juróom la siy jël ñu jaayee téeméer. yow kooku da nga ko mën a concurrencer. <coughs> donc moo tax ma ne ñetti secteurs yooyu tant que état bi defu ci euh, li nga xamante ne nii moo war. au lieu mm. ñu nekk fii di taf yëngal ay naan ñu léeg la ak lële tant que taxawuñ ci loolu réellement ah. Mm-hmm. problème mu. Euh, immigration bi ñëw dina yàq. très bien Issa ñu waxtaanee une question rek laaj ko loolu 100 francs yooyu ñu koy taxé nga ne moom lañ koy taxé te taxé wuñ ko tubaab bi la tudd. ak fan lañ ko teg doo ko expliquer. comme ça non non yow kay ñu koy def kay laaj naa leen yéen kay lañ koy laaj yéen kay lañ koy laaj. parce que dafa amul moo tax. amul amul amul d'accord alors non Mame Birame c'est l'exemple pour ne pas cité pour pardonnez-moi la pluie c'est gratuit mais ce sera c'est donc li ma kii subit ça effectivement effectivement. donc lima maam Biré di wax ak ñoom très bien alors Issa ñu waxtaanee actualité politique ak euh, li nga xam ne surtout moo moo mujjee xew ci mbiru euh, ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee ay prisonniers politique wax nañ ne romb nañ junni euh, ki ci gën a siiw mooy Ousmane Sonko il en grève de la faim ba nekkoon en réanimation Cheikh Bara également dans la même situation ak keneen muy Hannibal Djim ak xëy ñoo xam ne ils